yi envisager euh, annuler ay contrat yoo xam ne wala ay marché yu mu jàppul ne priorité la pour am benn marge budgétaire mu mun a financer projet yoo xam ne. yu urgent la pour le Sénégal loolu par exemple. waaw mais yooyu yëpp tam dafa am nu ñu koy defee. parce que euh, xam nga état dañ koy porter plainte. su fekkee état dafa teg loo xam ne jaarul dañ lay porter plainte. rupture de am na yoo xam ne boo ko defee au niveau international ay milliards lañ lay fayu. te boo fayul euh, gars yi dóor la ay sanctions hmm. lu nekk dafa am nu koy defee rek. mais loolu lu baax la saytuwaat fexe ba lépp loo xam ne lu état di jënd mu jaar yoon. Mhm. Euh, loolu bokk na ci li nga xam ne dina tax état sax am xaalis. parce que état li muy perte ci ay ay ay ay ay ay ay ay bagages yu muy mhm. jënd vraiment c'est des milliards. loolu donc loolu aussi lu lu am solo loolu ñu war a mun a jël en considération mm-hmm. alors yow yaa jiite itam commission bi saytu wàllu loyer. Mm-hmm. Euh, depuis bi président Macky Sall décidé waatee ni dafa bëgg location bi wàññeeku ñu réguler ko en tout cas ba du ñu lor ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, ñuy dëkk. Mm-hmm. Euh, yaa ngi doon def liggéey boo xam ne mi ngi doon soxal xool est-ce que respecté nañu li nga xam ne moom mooy li ñu fi tëraloon est-ce que liggéey bi mi ngi avancer fan ngeen ci toog. waaw commencé parce que traité nañ presque trois mille huit cent quarante huit euh, ay plante yoo xam ne. Euh, mooy jafe-jafe am diggante borom kër ak locataire bi moo xam boroom kër gi kalaame moo xam locataire bay kalaame. Mhm. mais du loolu rek mooy liggéey bi ñun am na ay décret yu ñu war a bindaat pour ni ñuy calculer terrain yi. am na décret yu ñu war a bindaat pour mhm. ni ñuy calculer njëgu tabax yi mhm. am na décret bu ñu war bindaat pour ni ñuy catégoriser tabax yi et cetera ak ni ñuy calculer njëgu loyer yooyu yëpp dañ ko war a defaat ensuite war nañoo installé wu ci région yi am nañ ay représentation ci région yi mais ñooñu fonctionné la guñ parce que ba léegi amuñ budget mm-hmm. liggéey nañ fukki weer yoo xam ne sax kenn fay ñu salaire mais dañoo xam ni état di doxee ñu fexe utiliser ñoo xam ne euh, ñu ngi doon liggéey ci état pour ñu mun a def liggéey bi en attendant toog nañ presque xaw ma ñaata weer amuñu woon local mm. boo xam ne fa lañ mënoon recevoir léegi loolu yëpp rek la man miy wax ak yow awma bureau ba tey ba tey donc. seen euh, salaire fu ñu ngi di fay. Euh, commencé nañ di fay par ndànk alors mais par exemple am na yoo xam ne ba léegi kiiagul parce que ñun buggoon nañ am ay agent yoo xam ne tey jii. dinañ mun a dugg ci kër yi di xool est-ce que yow kër gi ñu la loué sax kër gu nit war a dëkk la parce que am na ay kër yoo xam ne. Ah. mais vraiment da xam ne kii nii. fi mu la dëkkal normal. Mm-hmm. ay mala sax boo leen fa denc. voilà ñu coow nga yooyu yëpp mais yooyu yëpp agent yooyu yëpp day laaj budget. day laaj gars yi fay leen salaire jox leen euh, transport ñu mën a dem sur xool affaire yooyu yëpp donc euh, ñu ngi ñu ngi dóor dàqe daal derrière moyens yi pour mun a def liggéey bi yëpp. pour mu gën a gën a gën ce que décision bi décision bu bu bu sérieux parce que euh, daanaka. Mm-hmm. Euh, li nga xamante moo di wàññite bi saafara bu jur jàngoro la parce que wàññi nañu gis nañ ni am na ci borom kër yu bëri yoo xam ni dañu jékki ñu génne ñi nga xamante ñoom lañ luwee woon. Mm-hmm. ñu cokk cokkalaat tuuti defaraat tuuti ñu jëlaat luwee waat presque lu ëpp sax li nga xamante ni moom la ñu moom la ñu est-ce que nekkul saafara euh, bu bu jur jàngoro finalement xam nga problème bi ci nekk mooy dafa am loo xam ne mooy indi jafe-jafe mooy néew doole yi nit ñi néew doole mm-hmm. xam nga ñun par exemple 2014 bi ñu njëkkee fexe ba état wàññi 29 pour cent. Mm-hmm. da ngay gis koo xam ne cent mille la doon fay ñu wàññil ko 29 pour cent muy vingt 29000. Mm-hmm. day ñëw ci borom këram ne ko ah Fatou mu ah mu ne ko wàññil 5000 kese. te moom 29000 la ko yoon may. Mm-hmm. mu ne ko wàññil 5000 xam nga lu tax pour woon ko ne ko ah man nag loi 29000 la ma may mais laajuma la li loi. wax dama la maa ngi lay yombalal pour que en cas man tam su ma amee retard. wala dara mm. bu ma teg li loi wax. parce que soo neewee doole sa fay location du du régulier te bu fekkee da ngaa laaj waa ji ay ay ne ko loi moom itam bu respecter loi boo ko amelee un mois rek am na droit def procédure donc loolu tam bokk na ci li tax beneen bi bokk na ci li tax ñu gars yi duñu boole beneen bi. même pour les prix hein, pour les chose, prix même pour les prix c'est la même chose su suñ lu ñu leen teg rek dañ koy tegoo noppi. Mm. loolu moo tax ñun ñu ne. suñ amoon moyens yi dinañ yónni ay nit ñuy dugg ci kër yi mais mun ngaa ñëw ba ci benn kër sax laaj waa ji ne ko est-ce que kii lim lay lay normal nga ne waaw mu ne waaw. te fekk normal nga dem mu ne waaw bëgguma ko woon a wax. donc Sénégal ay dafa xaw a jafe dimbali ci côté. moo tax état war a agir ci pouvoir d'achat bi. voilà mais yoon may na la yow nga dëkk ci kër. un an deux ans trois ans dix ans nga ne mais man jàpp naa ne waa ji lim may luwee dafa seer. soo demee ci juge bi juge bi ci boppam day jël benn expert mu calculer waat prix kër gi su fekkee par exemple mu la koy luyee cent cinquante mille alors que mu ngi ko waroon luyee cent mille hmm. pendant quatre ans cinq ans cinquante mille yooyu mu ciy teg yëpp da koy rembourser par force hmm. te il risque deux à six mois de prison ñaata nit nga gis mu ñu koowu mus ngaa dax mus ngaa dégg sax ku porter plainte ci loolu te yoon may na ko mais duñ ko def parce que yoon dafa protéger euh, locataire bi protéger boo xam ne kenn mënul ñëw ne la génnal huissier sax mënulaa génne kenn rek moo mën a génne mooy juge juge bi mooy wax kii na génn ñu yónni huissier mais huissier ci boppam mënul tëb ñëw génnee la donc yooyu yëpp yenn yi ñàkk xam ñenn ñi dinañ ko xam mais dañ naan jaru ko ñenn ñi dinañ ko xam mais ko ñemee def parce que dañ xam nañ ne ñoom bon dañuy am jafe-jafe mm-hmm. donc yooyu mooy yenn problème yu ndaw ndawaan yi nga xam ne mi ngi ci ci ci mise en application. est-ce que kon tey dana jàpp nga ne dana am solution par rapport ak ak li nga jot a li nga jot wax yëpp. waaw dina am solution parce que eh, ñun léegi li nga xam ne moom la gars yi daan bañ a def maanaam fexe di booleek yooyu su ñu amee ay agent yu doy agent yi dinañ mën a dem si terrain bi di xool xam nga léegi-léeg sax nga ñëw nit ki ne la way damaa ñëw waaji ne ma du ma ku du étranger. loolu c'est formellement interdit loolu moo xew de léegi. wala mën nga ñëw mën a du ma la luye. c' est formellement interdit wala dañoo a laaj am doom yu bari wala di la laaj bulletin de salaire c' est formellement interdit mais kenn du réclamer te loolu boo réclamer ñu teg leen ci yoon ndax li gars yi di fàtte mooy location commerce la boo waxee mu ne génnal sama kër mais moom amul droit dugg ci kër gi su dee yow eh, daf la ko loué tant que tant que yow autorisé woo ko kon kay nekkatul këram mais ñu bari ci bailleurs yi xamuñ euh, wax dëgg yàlla lu yoon wax mm-hmm. ñàkk xam li yoon ngeen am ci responsabilité bu mag en tant que consommatrice ngeen war a xamal exactement eh, sénégalais li nga eh, xamante moom moo di seen i droit par rapport ak exactement looloo tax ñuy expliquer mm-hmm. mais problème bi ci nekk mooy ñi nga xam ne ñoom ngay expliquer am na ci ñoo xam ne dinañ xam lii seen droit mais duñ ko nangoo laaj parce que xam nañ ne seen yelleef defuñ ko seen euh, seen warugar defuñ ko du duñ laaj seen àq parce que bu fekkee ne yow kii da ko war a fay chaque mois yoon ne boo ko fayul un mois am na droit boole la ak euh, juge bi pour ñu génnee la ah da nga naan yii kii kat su ma ko tegee ci yoon bu ma toogee te comme man damay am retard léegi léeg un mois deux mois trois mois bon donc doo ko nangoo boole. Mm. yooyu mooy jafe-jafe yi. Mm. donc loolu néew doole gi nit ñi néew doole dafa bokk